kii nag di metre Moussa Diop ba léegi moom caaf caabi mu ngi wéy di ko féete gannaaw moom euh, ba tax na ay ñooñam li ñu bëgg weesuwul ñu teggi ko loxo nu mu gën a gaawe bureau exécutif bu age jot na kon mu ngi wax ni daal wàllum procédure bi tax ñu tey maître Moussa Diop euh, yoroon fi ay jamono société bi di Dakar dem dikk procédure boobu daal dañ ko war a gàntal euh, ndax moom mu mën a génn ci kaso bi ki ñu ciy déglu moo di euh, Ndiap Lo ñu jàpp nag ni conférence de presse bi ñetti mbir moo ko waraloo bu ci njëkk mooy détention arbitraire bi nga xamante ni jàpp gi nu jàpp te teguñu ko ci yoon maître Moussa Diop beneen bi ci des mooy candidature am bii nga xamante ni conseil constitutionnel da koo rejeté te tegu ko fenn amul fenn fu ko teg beneen bi ci des mooy parti bi ak situation yi mu jànkoonteel lan mooy perspective politique am wax nañ ni à partir de maintenant touché nañ suñu coordination yi nekk ci département yëpp ak commune yëpp ak cellules yeeg section yeeg yëpp dès la semaine prochaine incha allah dinañ introduire ay demande de manifestation pour incha allah ñu manifester exiger la libération immédiate et sans condition de maître Moussa Diop parce que loolu mooy yoon